xam nga bu ñu la votelee budget ba année bi jeex da nga war a indi compte administratif buy wane ni budget bi ñu la voteloon fii la dugg fii la dugg fii la dugg mais man mënuma concevoir si la ñu voteel ko budget mu pare bëggaat beneen budget te loolu teg yi moo ko wax dafa ne képp ku ñu voteel budget booy ñaar pour ñu voter daal le budget da ngay indi compte administratif justifier que budget bi fii nga ko dugal bon taala ñu laaj ko ko li ma si gën a métti mooy mu convoqué pour ñu votel ko budget moom mu génn voyagé neen da loon lijjanti pour mbirum Thiès yaakaar naa booy lijjanti mbirum Thiès te ñu waral li euh, war la jox xaalis boo xam ne pour Thiès da nga war a toog mais mu toog ne mais mun a Dieng na taxaw pour ñu votel ko budget bi gars yi ne ko balaa ñu leen di votel danga ngay indi compte administratif muy dem nii dem nii ba kenn votelu ko comme que texte yi may na bu fekkee voteluñ ko euh, préfet mun na ko jox budget bi mais deuxième fois bi tamit ma ngi wo conseil muy ñëpp nak képp ku ci voter budget bi te compte administratif bañ ko laajoon indi ko man Martin dana len porter plainte parce que man mënuma concevoir lank lank lan indi wu ko tay mu bëgg ñëw nga ne dang kay voter lolu mom man Martin man duma ko accepter tay duma ko accepter ëlëk nga indi compte administratif biñ ko laaj bu justifier lañ ko lon fi la ko duggal ak fi lolu rek ay wax ci tay kon mënu ma concevoir maam euh, li nga xamanteni moy mooy collectivité locale bi ñi wax ay conseillers Idrissa Seck encore une fois maa ngi interpeller le président Idrissa Seck diko wax ni tay ties xar kanam bi nga xamanteni ni changé na ba tax lepp lu mu soxla ñu jox ko mu gañ ay élection contrôler dëkk pendant 15 ans tay man limay wax parti pouvoir central lo loolu wax pouvoir local Talla Sylla dafa demoon ci ben coalition bu ñu wax ànd defar ties ñun ñu bokkoon ben bokk yaakar ak yeneen parti yoo xamante ni ñoo doon toog di xëccoo pour mën a jiite dëkk bi waaye Thiès nañu wóoluwul leen ànd defar Thiès nañu wóolu Talla Sylla tey mu nekk maire tant que délégation spéciale amul je croyais que fi mu toll nii moom mooy xala nekk maire am prérogative bu nekk maire ba keroog mandaam di jeex kon conseil yi bii passé nga xamante ni mooy budget bi ñu waroon woote 2017 préfet moo ko mujj validé ndax la lan ay boycott yoo xamante ni ñoom dana waroon taxaw pour xool lépp loo xamante ni mooy jafe-jafe Thiès pour ñu saafara ko tey nag woote bi mu woote barki démb

diko tayle ci ñoo xamanteni wax deug yalla Cees waaye gisuñu seen bopp te loolu fi mu toll lu koy yakal politique la comme amna ambition pour jiite réew mi ëllëg na ko commencé ci ties nga xamanteni tay fi la dëkk leppam fi la nekk suma ma dal daal ton li nga xamanteni moy xex bi entre les conseils ak le maire Talla Sylla nan ko jël tek ko de côté xamna ñun Cees waaye ñoy fay les pour cassés ta ñoo ñuy togn nak ndax nan tok saytu li nga xamanteni moy mooy jafe ties xamni ties tay fi ne bu réussir a ñoo réussir loolu la doon intervenir en tant que coordinateur mouvement taxaw askan wi di leen sant yéen Prestige. Prestige alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Oui, c'est vrai li xew ci conseil municipal ville Thiès kenn bëggewu ko woon nii ah parce que wax dëgg yàlla man je fais partie des premiers yi nga xam dox nañ ay jéego pour que situation bi am bañ am parce que man man conduire naa délégation je suis réew mi dem seeti le président Talla Sylla dans son bureau pour waxtaan ak moom parce que booba gisoon naa ni ne ko wër.

transformé au pont nga jaar ciñ ko pour à fof kon lolu engagement la te dañu valeur ajoutée la won ci suñu parti ndax dafa ñëwoon na jënd parti carte parti comme un frère accompagner ko mais nous koy kenn du ko de na dafa ñëw ñu ñu ñu muñ waccé ko ko wa dëkk bi ni leen nak def nañu li ak li ñenn ñi ñu gëm gëm ñi ni la ñu tok mu fal ñu Yalla def yalla até élection yi jall mu ñew ci centre de vote di nek Thiès amu ci fenn fu am 15 voix Nous mu waron ko pousser mu am dignité bi mi woté ndax ñu bari doon nañ ko xaar fofu légui mu wëlbatiku ñu ko suñu pendant trois ans liñ ko ak alal dañ ko at mu jot alal day da ko def du ko fa def fa la chantier des wala problème des

xëy na yàlla dafa def ci li ngay def dévolution moom lañu attribué woon pour mu gérer problème collecte des ordures ak problème mu euh, éclairage public defalu ci waa Thiès dara ndax marché central bi nga xam ne tey jii moo ëpp lu muy génn ci mbalit nga xam ne projet service bi nga xam moo ñu may sax ñaari benn tases yooyu marché central lañ defee woon euh, préparation yi pour xool léegi nan lañ mën a def pour mën a absorber mbalit mi génn ci marché bi ñu ne ñii il faut ñu may leen ay benn tases mais central boobu sax tey jii benn tases yooyu jaaru fa ndax euh, position bu taal si la jël. di jaayanteeg wa Thiès affaire ndax jaayante wut ak waa réew mi ah ndax rewmi moy le parti le majo le parti majoritaire a Thiès donc su Talla ñëwee engagé benn bras de fer Thiès la engagé bras de fer. Talla Sylla xëy na am na fu mu tegoon bëtam jéemoon na faa tëb pour ag fu mënu fa ag xamna bopam légui lenn moko déssé moy ay pexe lay def ak jëm ñoo joxase ak askanu Thiès mais je pense que ñun dafa am ci yoon bu ñu nek taal duñu divertir ndax il est là pour ça. xam nga la ville elle est virtuelle mom limu liñ ko sant man de man sax ñu bloqué si Sylla mu tok moo ma gënal ñu bàyyi ko ci ni ndax bu leen fàtte chaque année taal dinañ ko voté budget lu topp milliard ak lu topp mais milliard ak bu topp boobu nañ ma benn population bu dëkk Thiès wax ni ma mas naa gis sama biir koñ wala sama gox benn agent wu mairie ville ñëw na pour changer benn làmp wala gis naa oto mbalitu ville jaar sama buntu kër roñ mbalit te pour pourtant dañ koy natal carburant euh, di ko ko mu koy jël ci compte ba dañ koy bàyyil xaalis pour mu war cee jënd xanaa rechange da koy jël fa nekkati bu at mi jeexee dañ koy bàyyil carburant pour muy roñ mbalit mi da koy jël dañ koy bàyyi pour moom mu am loo xam ni tey jii da koy mën a jël pour assurer ko socialu mairie bi tabaski doo gis taala si la yëkkati benn enveloppe jox ko nit ko ni maa ko jàppale ci tabaski moom daal bañ ko falee léegi li mu def Cees waaye teg seen bët mooy yor làmmiñam fu mu nekk wax jàng yu mu dem jàngkat ba balaa jël moom mu def avant premier jël jàng yi ko ba jàng yi jeex bu laajee fecc mu fecc ko dem et je pense que loolu soxla wuñ ko ci maire